jigéenu Sénégal jaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na taxaw jigéen taxaw na

formation yooyu état yebalaat keneen mu ñëwaat formé ñu en technique d'emballage suñu jigéen ñii mën nañoo defar ay sachet dañuy dugal suñu céréales yi mën nañoo defar ay sachet yoo xam ne yi dañ koy jàpp comme li ngeen jëlee ci Auchan ba ñoom ñu ngi nii toog ñoom ñëpp loolu mën nañ ko seen diplôme la détail jigéen dafa xaw doy waar ay jigéen bu ñu nekkee xeebal te yàlla dogal suñu groupe projet man yàlla li may toog ci kër gi bëriwul mais même su ma demee su ma demee benn saako dugub la ñuy daaneel en une seule journée macha allah li nga ko ci te man dama ko kon seen pas-pas la seen pas-pas la fan yii nii benn frère Soda Diouf daf ñu may stand.

jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono na